jamono yi ñu toll ci Sénégal dafa mel ni parti politique yu bëri dañoo nekk ci guddi gu bët setagut ay problème yu dul jeex dem sax ba yenn ci ay parti di dàq seeni militant militant yi di taxawal seeni parti bopp lii nag acteur politique yi ñoom gis ne am na lu bëri lu ko waral li ko waral mooy euh, ñàkk démocratie bi am ci parti politique organisation yi association yi boo xoolee histoire politique bu Sénégal ki fondé parti bi daf cay nekk ba faatu wala gars yi complot jëlee ko fa mën naa naa limal président Massoud Diop moo créé PA yi ba fi jógee moo fi moo ko nekk Seydou Sissoko moo créé PIT defe naa télé moo tax Amath Dansokho jël ko. amaati tële moo tax keneen jël ko LDMPT Babacar Sané moo fa nekkoon mais gars yi complot jële ko fa teg fa Ablaye Bathily PS Senghor ko créé ba mu fi jógee nekk ko Abdou Diouf remplacé ko nekk fi ba mu fi jógee sama xarit yàlla na ko yàlla yërëm Ousmane Tanor Dieng jël ko ba mu fi jógee

ci biir parti politique yi euh, jafe-jafe yi li koy indi mooy rek en général manque de démocratie da ngay ne ci parti politique ngay njiit bi te buñ fàtte ne njiit kat ay nit ñoo lay def njiit parce que parti politique toujours ay nit ñooy toog créer jël kenn jiital loolu ne veut pas dire que ne yow mi ñu jiital yaa moom parti dafa am ñu ànd ak yow kenn ku ci nekk fa nga toog mën na fa toog léegi nag des fois da ngeen di dem di ànd di liggéey di ànd ba ci benn moment waxtaan amatut wala yow ma nga xam ne yaay jiitu parti bi euh, amaan na doo wax ñëpp di nga wax ak ñii bañ a wax ak ñeneen donc ñeneen ña bañ a waxal gis seen bopp te boo demee ba ci euh, parti boo xam ne amut communication amul waxtaan amul wëccanti xalaat euh, dafa indi ay jafé jafé analyste politique kii di Ali Fary Ndiaye moom dafa japp né problème yu bëri yu am ci biir parti politique yi ñak idéologie politique moko waral. les éclatements et les conflits internes sont la résultante d'une absence de démocratie interne. xaajaloo yi ñu néméku ci kuréel politique yi dara waralu les gens y entrent pour soutenir un frère pour soutenir un parent et d'ailleurs vous le voyez le leader toujours gagne là où il est originaire ou il est très fort là où il est originaire parce qu'il y a le vote affectif. bu fekkee ne président parti bii di Union nationale pour le peuple maître Souleymane les Ndiaye dafa jàpp ne il faut que nous supprimer parti yi nga xamanteni duñu bokk ci ay élections député bi di Adji Mbergane Kanouté nak présidente parti de di Union pour le développement du Sénégal dafa japp ne faw parti politique yi amal ay coalition yu yaatu. dañuy le euh, fonctionnement parti est-ce que duñu def ci euh, code des obligations civiles et commerciales bi nga xamné mom moom organisation yi euh durée rebord, même fondateur bi nous ko dépasser hein à la tête du parti parce que le congrès c'est toujours par acclamation que le leader est reconduit hein loolu ay façon la feem la yo xamné ne fay démocratie mais parti ni mu ci mi am kenn ku comme la euh, création des associations est libre kenn ku la nexé aussi comme euh, loolu la yoon wax euh, nga dem euh, euh, créer sa parti mais seetlu nga ne du parti yi ñuy créer yëpp ñëppay dem élection am ñoo xam ils sont là juste pour la galerie bon boo bokkee mouvance présidentielle à l'époque Cap 21 a fait une yu bon comment ça se passe avec la mouvance présidentielle actuelle nu mais daal euh, loolu daal lañu war a wàññi moom. war nañ xoolaat waaw war nañu war xoolaat euh, condition de vie parti yi parti bu ñu créé ñu nga def ñaari élection bokkuloo ñu dissoudre la. man nag d'accorduma ci limiter parti politique xam nga lu tax yaakaar naa ne bu ñu doon limiter parti politique kon tey man du mu am parti politique donc ñoo nekk ci démocratie loolu indi li nga xam ne mooy vitalité démocratie bi. xam nga nag dañoo xaw euh, peut-être mën a euh, li nga la Platon ndax pour Platon euh, la politique mooy l'art de gérer la cité tamit taxu donc il faut nous ramener waat ñëwaat ci li nga politique servir askan servir mooy que tamit ñom ay idéologie am ay conviction yaakaar naa lolu buñu ko amé euh autant ñu am parti politique un jour viendra où il y aura de grands ensembles du dañuy wañi parti supprimer ay parti politique dañuy wañi ay parti politique dañu arrêté euh, taxawal parti politique mais grands ensembles yo dina mës a ñëw bu dee ñun ñëpp li ñu ñox moy Sénégal. donc lan su des partis peuvent se retrouver des partis peuvent se retrouver et fusionner parti wàññi ko mais supprimer les parti loolu munu nek li mën nek moy que des partis waxtaan d'accord d'accord dañu ko ñu fusionner and def ben parti. si benen walu wi suñu analyste politique bi di Ali Fary Ndiaye mom dafa gis ne faw état bu Sénégal xoolaat nu ñuy taxawalé parti politique yi. la solution c'est de créer des structures horizontales. liko wara safara nak du len lu dul taxawaay bi nga xamanteni war nañ ko taxawal yenn ci ay parti ngir ñu mëna xex li nga xamanteni mom moom di démocratie xexit ngir képp ku ci nekk mëna wax li nga xamanteni mom di xalaatam nguur gi tam wara mëna am taxaway bu dëgër ci li nga xamanteni régulation ci biir parti ngir ñu mëna am taxaway bi nga momo war Euh, de, de, de, liquidation de certains partis qui n'ont en réalité que d'existence légale. Important, comme vous le dites, c'est qu'on arrive quand même à distinguer parmi les partis. ceux ñu xam ci kuréelu politique yi euh, ñi ci gën a fës. il kenn mënul tere nit ñi ñu taxawal ay kuréelu politique. waaye li ci gën mooy boole doole ci ben mbolo ndem sax ñun ci congrès de la renaissance démocratique solo lu ñu loolu àndub ragante ginnaaw Au niveau du congrès de la renaissance démocratique, nous avons fait le choix de ne pas de renoncer à la coalition opportuniste. ngir gën seytu nu ñuy taxawalé parti politique nak député bi di Adji Kanouté fas yéene assemblée nationale ben projet de loi. Autant je suis pas d'accord pour. Euh, nous euh, ni parti politique ou wala supprimer autant je suis d'accord à ce que que des grands ensembles se forment et je pense que euh, euh, je peux bien proposer un tel projet de loi allant dans ce sens qu'on aille vers ces grands ensembles là nous avons une ñu idéologie, nous avons ànd et parti socialiste nous ñi le socialisme nous ànd ni quelqu'un de la gauche on nañu mën a ànd ñi ni quelqu'un du libéralisme mën nañu ànd mën nga gis ku nekk socialiste ak ku nekk libéral parce que les pour moi, il n'y a qu'une seule idéologie c'est le peuple tout se résume au peuple c'est bien gérer les choses c'est ça la conception platonicienne et je pense que faut la nous war Donc, donc nous nañuy partis parti politique y am quatre grands partis qui sont ne dans ce cas et ça va nous éviter dans ce cas des coalitions